ñi di firee ci seen xaqiqa marajal baxarayni yaltaqiyaani baynahuma barzaxun la yabgiyaan waaw xëy na ñu koy firi ñoom mufassiruna yi géej yi rek lañ koy firee diggante géej ak dex ñu ni dinañu dend te duñu laalante la fa yàlla jaareele ba du ñu laalante moo jara xalaat te ku dem ndar di nga ci xam dara waaw waaye ñoom itam ci seen déggin ñu ne albaxarayn mooy fatimatu bintu rasul ak aliyu bnu abi talib ñoom ñaar ñooy baxarayn yi baynahuma barzax muy yonent bi loolu tax la yabgiyaani waaw kenn ku ci ne ak leeram ak leeru ka ca des bu ñu leen bàyyi woon ñu jaxasoo kenn du ko àttan mais yonent bee dox ci diggante bi moo tax baatu check point bi foofu nga koy déggee mais dinañ ci ñëwaat xañ ne bu ñu ko capitaine maye li ma ci jot a jàng ci seen euh, check point bu mujj bi waaw mu mel ni kon ki waxtaan yi passé woon li di wax ni lu am solo la ndax mën na tax nit yegg ci yàlla waaye it mën na tax nit sore yàlla moom taawil mu ni te ñetti taawil yi nga xam ni jàpp nañ ko ci wàllu taarix benn bi bu yonent yàlla aadam la bu ñaareel bi mooy bu ibliis bu ñetteel bi mooy bu Isxariyoot yi ñu di ko wax Judas Iscariote bu dee bu aadam yàlla ci la dëgg pour baal ko ndax njort ko lal yàlla def ko ni lu tax nga def li nga def ni ko am lu ma foog rekk waaye duma la wecceeg dara waaw comme nee na yàlla duma la wecceeg dara looloo tax talaqa aadama min rabbihi kalimaat fa taba aley moo tax loo juum juum juum boo wanee yàlla ni ko duma la wecceeg dara rekk lay régler mbir ma dana yomb bu dee tawilu iblis ci la yàlla dëgg ba rëbb ko ba abadan ndax bi ko yàlla ne mu sujootal aadama tamu lànk réponse bi mu jox yàlla te moo di danga ma jënde aadama gis nga ñun wolof war nañ di wattu baat boobu mere nit parce que pour yow daf la jënde diw waaw or ku ci nekk ak sa cër ak fañ ko denc keneen mënu ca dara waaw Iblis loolu la tontu sunu borom yaa ma jënde aadama mayit ma xam sama bopp yalla rebb ko ba abadan way nak new na faydaam ma wax len ko legi rebb nako mais naw naw na faydaam fayda gi moy lan modi di Iblis dafa dajja ak musa muni Musa niko yendal khana li am sama digënté ak borom bi def leen neex Moussa ni ko lu tax nga wax ko mais ko ndax dama gis bi ma am ak Yalla ba tey yéen ñii kenn waxu ci waaw mës nga gis lool est-ce que ba muy lànk est-ce que tàggu na kenn Moussa ni ko man kat dama xamul woon ni dëgg bëgg ñu dox ci kon man dinaa ci dox dem ca sunu borom sunu borom ne ko pourtant compliqué wul dama ko waxoon na sujootal aadama mu lànk bu ko sujootalee rek affaire bi jeex Musaa ngi yàkkamti ni ah kon affaire bi jeex na ñëw ci Iblis wax ko ko Iblis ni ko ah, yàlla na naru narul ñu juboo ndax aadama negam ba muy dund laa ko sujootalul ba saak ba mu dee. mais dignité bobu lu sax là la ndax lo nek rek sax ca waaw même bu fekkee ni Nous lay détruire sax ca waaw ce tax mana ñettelu tawil bi

léegi nag bi mu ko defee ba Romain dem jàpp Isa ba noppi mu ni tawilam moo ko nax ndax xamul woon ni Isa ndeke toll na noonu mais li ci gën yéeme góor gaa ngi koy wax moo di bêtise bi tax na الارواح الخبيثه واخ سونو بروم نيكو إلك بولين دي يوبو سفاريت نالين مي بو دك اك اسخار يولوطي ندخ بكار بي مو ديف واو nga xamni kon la mu def tuti wul mu xalaata xaru mais fekk na boobu yàlla programme ne pour moom ñu jël ko ci place Isa bnu Maryam wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu walakin shubbiha lahum mais li jot euh, jara seet mooy sunu boroom hmm, li ñoo du tuddee discours de politique générale coow barena bare na ci un ñu discours de politique générale mais bi ci am solo sunu bopp borom moko prononcer prononcé diko tudde al khitab al ali min janabil mutaali xoolal lool yalla di def discours de politique générale wax ni nañu dajale yonent yépp ak attab yépp pour ñu ñëw suivre orientation bi ñu dem dajale leen indi leen yàlla laaj jibril ni ko ana iblis mu ne ko ah, iblis lu mu ci doon mun ko may ci bokk mu ne ko ko parce que yonent yi ñoo nekk exception ci lépp lu baax waaye iblis it moo nekk exception ci lépp lu bon kon moo yore opposition bi waaw waaw kon nag dafay jaadu mu fekke dajé ba jéné wul sunu borom waaw waaye Jibril dafa jaxlé ndax defoon na ni loolu warul mën nek nga fekk sunu borom dara tënk ko yu mel noonu mooy tax nit ñi war di tey ci yu bare dégg na fan yi sax kuy soow ni yi xew ci réew meek nit ñi di wax lu tax Moustapha Sy waxul Valeu, Aureu Mimusa Fasiraka fi nekk loolu kenn mësu ko gis mais fekk na man dafa am koo xam ni moo may orienté muy Seyid Cheikh Ahmed Tidiane gis nga li mu waxoon nii bu ñépp dee wax booba noppi jot na te Sénégal ñépp a ngi wax kon nag xam sa bopp asumtu xukmun waaw mais bu ñaareel bi ma war a tax nit ñi gën teey mooy mag ñi dañu wara xamé ñaari khutba yi khutbatu alladhina anamta alayhim ak khutbatu almaghdubi alayhim aw ad-dallin mag ñi dañuy natt ba foofu am na ñoo xam ne bu ñu waxee يلا سين كدو كي الذين أنعمت عليهم كلا كوي نات دا دنيو واخ موكو لولين وورول مي ام نيغا خامني نك ميم بولين يونين تي جورون ولا ولي يو جور لين بو واخي سين كادو كي المغضوب عليهم او الضالين كي لاج كوي نات ген بال ما نك بو واخ ايه fekk ci biir phrase arab la bokkul ak bu may wax aaya fekk ci biir alquran la ñaar yi bokkul waaw bu ko defee xàmmee ñaari discours yooyu dafay am solo ndax sens de responsabilité mooy tax te sunu boroom fi muy natte ak fi nit ñi di déggee dafa nekkul benn moo tax mag ñi seen yitte yépp mooy baat yi yàlla ni muy utiliser baat yi bu téyee mu ne alqawl bu téyee mu wax alkalaam quelle est la différence entre alqawl walkalaam alqawl bu ko yàlla dee wax rekk xamal ni lu dundul la إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون mais bu fekkee ni kalaam la nag li yàllay waxal def ni jonn ci kanamam wa kallama allahu muusa takliman waaw loolooy tax différence yi am yépp ci xëccoo yi ñàkk a xam yëf yi fi muy jaar fan la looy tax ma bëggoon bu ëllëgee démarche scientifique Bobu Nyom capitaine Gel, ci checkpoint mu doli ma ci génération